abonné leen ci Buzz Media TV la seen des patriotes ngir di am ay actualité saa yu ne abonnez-vous. dal leen ak jàmm fii ci Buzz Media fii la seen de patriotes yow mi nga xam ne yaa ne cëndam ci vidéo bi te abonné go ñoo ngi lay ñaan nga dal di abonné waaye bul fàtte bës ko los de notification bi ngir di am ay actualité yu ama am solo. dañuy dooree xabaar yi mbirum li nga xam ne kat moo waral sénégalais yëpp dal di mer gannaaw bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko ci jàppin woo xam ne ñoo ngi koy toppee vol de portable waaye nag ak appel de instruction loole nag métti loolu ndawi sénégalais yi ñu moo tax ñu dal di jóg di wax ne usman Ousmane Sonko daañu ko bàyyi jamono ji nag nemmeeku nañu ak xeexoo bu métti métti jamono ji fii li ci réewum Sénégal Dakar à soo foofu fépp kat ña nga fay xeex xeex bu métti ngir ndaw ñi ñoom li ñu bëgg moo di seen leader di Ousmane Sonko ñu teggi li ñu ko tekk génne ko fa ñu ko dugal bàyyi ko nag mu mën a éligible dal di bokk ci candidature yi nga xam ne ñoo war xëccoo réewum Sénégal atum 2024 moo tax ndaw ñëpp dal di mer lool ba futtu waaye nag dugg leen commentaire yi dal di bind Ousmane Sonko yàlla na ko suñu boroom aar dafa ay kër yu xonq ngir ñu mën leen a toppal actualité yi bu leen fàtte abonné dal di bës ko los des bi